nekku ci. te ñun li ñu bëgg mooy France teggi loxoom ci sunu. très euh, bien ñun ñi ngi wax affaire CFA. Mm. ñi ngi wax affaire génn dagg cordon ombilical sidit bi nga xam ne moo ñu séqale ak France trésor France moom nañu doon dagg d'ailleurs sax yu bari am nañ ci ndam parce que xaalis bi ñu doon bàyyi réservé yi. Mm. nañ ko trésor français ñu ngi ko indi léegi je crois bu ñu neexee ñu placé ko ci marché monétaire bu ñu neex. Mm. mais bu ñu bëggee génn biir France bëgg ci ci France bëgg def suñu xaalisu bopp suñu monnaie bopp ba pare Macron du ñëw di wax ak Alassane Ouattara naan éco bi nii ak nii la war a doxee kooku day tax nit ñi seen xel day tey comme ni nga ko waxee dañu naan ëllëg éco bi bu ko tegee day mel ni CFA la rek six ak neuf dañuy dindi kii pour tëkkale ah te nit ñi bëgguñu loolu parce que àddina day dox xale yi léegi dañu d'accord loolu. Hmm. léegi xale yi yeewu nañu ak réseaux sociaux yi. ak activistes yi ak xale yi dugg ci politique bi ak journalistes yi xale yi duñu xale yi woon juróom fukki at démb léegi ñoo ñi nekk France ak Amérique ñoo yem gis-gis ñoo yem information ñoo yem bëgg-bëgg àddina yooyu yëpp dañ ci war a seet ñu kii ci donc euh, ala kuli al hmm. Macron moom ak France dinañu génn seen loxo ci xaalis boobu parce que kenn du ko nangu. ñi fi ne tey di jiite ni ñu abordé question monnaie bu bees boobu yow euh, dal na sa xel wala dafa am lu non man dalul sama xel parce que ñoom xamuñu sax lu ñu bëgg xamuñu ndax dañuy def monnaie pour suñu réew rek Sénégal xamuñu ndax dañuy dem gisee ak. waa dañu ne idée bi njëkk bi ñuy gën a prôné mooy euh, monnaie communautaire. monnaie communautaire boo sottiwul nag ñu doog a xalaat. peut-être suñu monnaie bopp mais avec toutes les études qu'il faut. waaw parce que dafa am ñoo xam ne dama daan waxtaan ak ñoom ci ay de télévision fu mel ni par exemple Sen TV ak yooyu. Mm-hmm. ku mel ni Ndongo Samba Sylla docteur Ndongo Samba Sène économiste mais mais Ndongo dama ko daan sax retaan sax moom sama xarit la papaam sama xarit la euh, Ndongo dafa daan wax nañu def monnaie communautaire ça c'est vrai la a raison mais à un moment donné ci weer yi passé bi ñu commencé gis pétrole dem na sax banaan naan est que sax duñu ut monnaie boo xam ne kii ko Sénégal rek moo koy moom. monnaie national monnaie nationale comme Mauritanie comme Gambie ah donc il faut ñu xam ne ñu bëgg. Mm-hmm. xale yi ni ñu jëlee affaire boobu. du ma leen sax wax xale yi les nouvelles autorités. Mm-hmm. ni ñu jëlee affaire boobu. vraiment dañ ko jël ak populisme yooyu kenn du ko jële noonu ak loo mën wax naa leen ko ba tey réew kenn du ko doxalee di jël bant yi wala di xëbalaate da teey parce que boo bëggee sa politique dox espace bi dafa war a am jàmm jàmm nit ñi seen xel dal mm-hmm. ah ñu respectante nga waxtaan ak nit ñi te wax ji nag nañ ko teg ci kaw dëgg ñu toog ñu wax ne ñun lii la ñu bëgg dañu bëgg pour éco bi ñu gën ko pousse mu gën a jëm kanam Euh, kooku nag boo ko defee foog ñu waxtaan ak suñu mbokk yi nekk yeneen dëkk yi CEDEAO bu fekkee ne suñu mone national la ñu bëgg pour ñun rek ñu moom ko Sénégal kooku tamit ñu woo suñu économiste société civile ak suñu homme politique ñu waxtaan ci. Hmm. loo gis dañ ciy waxtaan mais du rek wax affaire populiste ak affaire politique dafa am ay critères techniques yoo xam ne moo lal pour nga tabax sa xaalisu bopp sa monnaie bopp. alors professeur tey lan mooy défi yi gën a mag gën a jàmp euh, ci wàllu koom yu Sénégal janool war ko relever euh, dans l'immédiat man je pense que ñoom sax ñi ngi wax affaire euh, ay impôt ñoom ñoom bon évidemment kenn du leen ci ngàññi parce que loolu la ñu xam loolu la ñu jàng ñoom foog nañu ne lépp impôt pour tous ñoom foog nañu ne lépp ci impôt la or que impôt bu fekkee ne doo élargir assiette bi

defar xam nga lu tax. Hmm. parce que ñun suñ quatre vingt pour cent suñ euh, maanaam téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi mi ngi tëdd ci secteur informel. secteur informel bi ñuy wax mooy jaaykat yi nga xam ne inscrire ñu amuñu ci commerce amuñu NINEA kenn xamu leen. parce que pas formel. booy waaw booy def économie ak euh, ngay jaay walla ngay kii da ngay dem ut carte d'identité pour sa entreprise. registre commerce. nii na yaa pour impôt xam la mais ñooñu ñu ci bëri kenn xamu leen secteur informel ñu bëri boo demee impôt dañu naan xamuñu leen c'est des inconnus or que bu ñu defee élargir assiette fiscale bi xaalis bi dana gën a bëri ñuy fay impôt te impôt bi dootul diis ci ñu war a fay mais bu fekkee ne yokkuñu assiette fiscale bi ñi nga xam ne ñoom rek ñoo doon fay maanaam deux cent mille fonctionnaires même pas secteur privé peut-être au maximum boo jëlee trois cent mille ñoo ci xëy di wàcc ak ñeneen nag ñeneen bariwuñu sur dix-huit millions de sénégalais. Mm. boo xool ba xool xëy na lu mu bari bari bari trois millions yi rek xëy na ñooy ñooy fay impôt. te boo ko yaatalul ci ñuy fay imp mm-hmm. boo ko deful ñi daan fay rek ñooy fay. Mm-hmm. te boo naree yokk impôt pression bi day gën a te nee nañu trop d' impôt tue l' impôt. tue l' impôt entreprise yu bari am jafe-jafe. Ah comme niñ ko constaté parce que dafa am courbe bu ñuy wax courbe de l' c'est que booy ñëw di fay impôt ñëw ba ci kaw bu ñu la defee pression métti métti mhm. c'est impôt day wàcc parce que yow loo mënul woon dootoo ko mënati mhm. da ngay dàq ñu bëree bëri wala sa activité nga téye ko comme Eiffage mhm. dàq na ñu bëri te xam naa ay activité am dina ko wàññi te bu yokkoon activité am ci lay li muy fay impôt gën a bëri loolu yëpp donc lu am importance ba pare ñu seet nu ñuy fayee kooku moom mooy sama combat. bor bi ñu ameel entreprise yi nekk ci biir réew mi. dañu ñaari bor la am na bor boroo xam ne dañ ko war a fay bitim réew. Mm. ñi nga xam ne foofu la ñuy. ki wutee xaalis. Mm. mais tamit ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi di am ay entreprise liggéeyal di liggéeyal état di embaucher ay nit di leen fay bu nekk te ñooñu seen gannaaw ñu yor njaboot. ñooñu war nañ leen fay seen xaalis pour ñu gën a soqali bi parce que ñooñu ñooy tax xëy am. Mm-hmm. ñooñu ñooy yokk koom ci ci réew ñëpp xam nañ ko moom la ñuy wax les petites et moyennes entreprises. les petites et mm. maanaam boo ko jëlee secteur privé ci dëkk loo mën même Chine sax léegi noonu lañuy ñuy def. na ngeen fay ñooñu seen bor pour ñu mën a soqali koomu réew mi. ak ba pare nag fay ñi nga xamee amee nañ leen bor ci ginnaaw. Mm. parce que quand même. ñoom ni ñu ñëwee dafa metti mais bu ñu xëy na teeyoon ndànk rek am na ñu bëri ñu ngi doon ànd ak Macky Sall. c'est pas des politiciens ay technocrates lañu. ñi ngi ministère des finances man dama ko yàgg wax bu leen nit ñi di ŋàññe di wax naa ko keroog ci euh, réew mi xaw ma ci bant ki ku ñuy wax Alioune Ndiaye benn économiste dem seen TV di wax naan way euh, fonctionnaires yi ay charge la ba pare jariñu dara réew mi mais kooku c'est extrêmement grave li mu wax nañu respecter fonctionnaire ñun ñuy jàngale xam nañu ne fonctionnaire yi ñu ci bari am nañu doctorat en économie boo demee ministère des finances ministère de l' économie boo demee douane boo demee gendarmerie boo demee police armée xale yoo xam ne ay officiers supérieurs dañu am seen doctorat bu leen xeeb réew mi la ñu liggéeyal te dëkk bu mën dem ci àddina am na ay fonctionnaire parce que réew état foog moo am ñu koy liggéey l'administration ah et puis xeebaate dafa baaxul am humilité xale yi liggéey ministère des finances ak éco ak ministère de ak seen ay démembrement lu ñu leen mënti wax ay cadre yu ñu formé lañu yu xarañ lañu ñu mën seen liggéey lañu léegi nag quand foog ñu rassurer leen foog ñu wóolu leen loolu lu am importance mais di ngàññante suñu biir kooku moom dafa baaxul donc wax dëgg yàlla nañu def loolu mais am na loo xam ne mi ngi raam te wax naa ko keroog aussi affaire subvention man d'accord naa de defoon naa sa benn article. faut-il repenser la politique fiscale au Sénégal c'était du temps de Wade. Mm. pour dire qu'il faut diminuer les exonérations kooku moom wéeruwul fenn exonération da nga koy jox loo xam ne c'est d'utilité publique. Mm. wala dana indi réew mi suba njariñ. impôt sur les sociétés il me semble même am na ku ma ne Wade waxoon na ko ci ci sama bind dama ne yoon ñu def ko ci benn fourchette. vingt cinq pour cent trente cinq pour cent boo defee. bu at bi jotee nga investir wala nga embaucher ay xale ñu wàññi la vingt cinq pour cent boo ko defalee ñu indi ko trente cinq pour cent c' comme ça qu'on doit faire pour inciter entreprise yi léegi nag loolu moom euh, lu am solo la wax dëgg yàlla ba pare aussi subvention yi mi ngi euh, subvention yi ñu ngi koy bëgg wàññi ñun wax naa ko loolu FMI euh, genre dictat la ko def ci sunu régime dictat la ko def mais FMI ay nit lañu rek ñi fa nekk ak xale yi jiite tey ñoo bokk li ñuy jàng ak ñi nekk ministère di finances du ñu ay jëne Abdoulaye euh, waaw Abdoulaye Wade wax na ko nee na da ngeen nekk seen ay immeuble rek. Mm-hmm. Washington ci ay tour de verre ay climatisé di def lu leen neex di wax lu leen neex war ko dàqaloon jàng kenn nit ñi li ñuy xam sax yéen xamu leen ko. alors comme Macky Sall yi mi doon def ak Wade da ngay mën a jàkkaar jàkkaarloo ñoom wax ñoom fulla ak fayda. gisoon ne ni noonu la ñuy doxalee ak FMI non gisaguma ko ñoom seen waxtaan sax leeragul ak FMI façon il me semble sax que dem nañ fa temps ci assemblée générale ministre def nañu benn délégation mais subvention suñu réew suñu askan suñu réew xëy na ëllëg wala gannaaw suba mais jamono ñu toll seen loxo jotu seen gannaaw même boo subventionné nit ñi mënuñ fay courant même boo subventionné nit ñi mënuñ fay transport moo tax berte am na TER am na mais nit ñi ñi ngi commencé ñi ngi continuer jël bëri car rapide Dakar dem dëkk am na mais nit ñi ñu ngi jël car rapide ba léegi am na ñoo xam ne mënuñu sox fay berte subvention foog mu am ci pétrole ci essence bi foog mu am ci surtout électricité énergie léegi nag nañu waxtaan ak e, e, FMI loolu laa leen wax nee leen nañu may moratoire ñuy wàññi subvention yi ndànk-ndànk ba nga xam ne sax yàlla dina def incha allah li ñuy yaakaar ñëw te suñu pétrole ak suñu gaz fekk ñetti at ñeenti at mais yow suba bëgg dindi subvention kooku moom euh, boo ko defee dana indi dana jur loo xam ne mm. du baax ci régime bi du baax ci kenn parce que day indi ay troubles sociaux. te dina métti ci askan wi effectivement oui askan wi dañuy métti mm. dañ génn ci biti te yaakaar bi ñu amoon ci ñii bu tasee mm-hmm. réew mi dana métti jaxasoo jaxasoo boo xam ne mooy ëpp li fi xawoon ci Macky Sall ci ñetti at yi passé alors euh, wax nga ko ci sa ndoorteelu wax euh, mooy njëkk yi yokk euh,